wa man tabiahum bi ihsaan ila yawmi ddin mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa ngi leen di nuyu te di leen siyaara te di leen ndokkeel di leen balu aq di balu aq jëpp di jiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadul Muntaxa di ko ñaanal sun borom mu yàggal ko fi te wéral ko di nuyu mboolem jullit yi nga xam ne ñoo ñuy seetaan ak fu ñu mën a nekk ci biir réew mi ak bitim réew mbokk yi nga xam ne yéen a baaxoo ànd ak ñun ci émission bu am solo bi nga xam ne moom la ñuy wax euh, gàggantiku di émission boo xam ne Muxaddamatul Xidma TV di Amka TV moo leen koy defal weer bu nekk ñaari yoon xam ngeen ne euh, weer yi ci ginnaaw ñu ngi woon ci koor Ramadan ak kori boobaak léegi émission bi euh, daanaka jàllul su ko defee nag ñu war a tàmbaliwaat émission boobu ngir fas ci yéene indil leen ay bunt yoo xam ne dañ ciy gàggantiku euh, xam ngeen nag weeru tabaski teru na euh, tey jii la ñetti fan ci weeru tabaski incha allah kon xëy na bala ñoo dugg ci laaj yi nga xam ne moom lañ fas yéenee jébbal sëriñ bi ngir mu tontu ñu muy yi ñu war a gàggantikoo tey muy ay laaj yoo xam ne mu ngi fi woon ci koor gi bokki taalibe yi doon ko fi indi ñu war a ñëw ànd ci ak sëriñ bi ngir mu gàgganti ñu ci laaj yooyu Euh, bala ñoo jàll ci fiñ tolloon ci suñ émission gàgganteku muy ci bunt yi biñ tolloon euh, yaakaar naa jàpp ngeen ko yéen ñu ñu yàgg topp kon dañoo bëgg laaj sëriñ bi e, sagam ñu ngi ci weeru tabaski mu indil ñu ay leeral wala ay gàgganteku e, ci bu ñu doon tënkal rek lan mooy tabaski ak lu ci war jullit bi ak luñ koy defee e, sëriñ bi ginnaaw boo nuyoo ñu jox la kàddu gi nga duggal ñu ci laaj boobu aousubillah min alsheytaan irrajim bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wa sala allahu taala wasallama ala waa muhammadin wa alihi ajmain eh, sëriñ Abdul Ahad maa ngi lay di nuyu mbokk yëpp yi nga xam ne ñu ngi bàyyi xel ëttu xam-xam bi nuyu sëriñ Abdul Xaadir sëriñ Jóob di ndokkeel mbokk yëpp ci ak eh, liggéey bu am solo bi nga xam ne chaîne bi mu ngi koy taxawee ci yoon wi waaye di leeral nit ñi seen diine ci anam yu wuute di siyaare bu baax mboole mbokk yi daayiratu Muxaddamatul Xidma tàmbale ko ci sëriñ Afia al imam di sant bu baax sëriñ Abdul Ahad ci liggéey beeg yittewoo gi ah. ginnaaw bu ñu siyaaree sunu kilifa Cheikh Mahamadou Muntaxa ñaan sunu borom gën koo sàmm gën ko dëgëral waaye di ndokkeel mbokk julli yépp nag ki ni ko waxee weer wi ñuy tàbbi di weeru tabaski bokk ci al ashhur al xurum weer yi nga xam ne sunu def daf cee def worma wax ne li mu weer yi fukk lañ fa yàlla ak ñaar waaye am na ci ñeent weer yoo xam ne yàlla leen wormaal uh-huh. bu dikkee bu leen tooñ seen bu leen ci def lu defuwut waaye bu leen ci sàggan ba yiw leen raw weer wi nag màgg na lool sëñ Abdul Ahad uh-huh. ba dañoo ñëw ci tabaski waaye fukki fan yi ñu nekk nii rek ñu bàyyi xel ne yonentu yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam nee na lu ñu defal yàlla ci lu baax defal ko ko ci fukki fan yi moom gënal nee na yenn bis yoo xam ne yàlla bëggee na ci lu baax ni mu ko bëggee ci fukki fan yi njëkk ci weeru tabaski saxaaba yi ne ko ba ci jihaat mu ne ba ci jihaat fi sabilillah li muy rëy rëy jëf lu baax ci fukki fan yi ko gën nee lu dul koo xam ne dafa génn joxe alalam joxe ba kanam ah. deseetu dara kooku moom kenn féetewu kaw fukki fan la yoo xam ne Eh, borom xam-xam yi nee moom mooy al ayyaamul maalumaat mm. alquran di wax mooy it eh, wal fajri wala yaalin ashr fukki guddi yàlla giñ bëccëg yi fukki guddi yi lay wax dañuy wax ne ramadan fukki guddeem yi mujj moo gën ci at mi waaye fukki bëccëg yi njëkk ci tabaski ñoo gën ci at mi saxaaba yi eh, bokk na ci liñ ko daan dundale génn di dem ci jaay di tudd yàlla wax na ne ko mel ne Abu Hurayra ñu mel dañ ko def nga xam ne bu bëccëgee dañuy dem ci jaay kabar di tudd yàlla moo tax waxtu wuñ bëgg kuy tudd yàlla bari la ku mën a woor juróom-ñeenti fan yëpp nga woor ko rawatina juróom-ñeenteel ba ak juróom-ñetteel ba bisu ñuy woor la bisu juróom-ñeenteel te mooy yow mu arafa bu dee fii ci Sénégal mooy gaaw bi nga xam ne mooy doon juróom-ñeenti fan ci weeru julit di nekk juróom-ñeenti fan ci weeru mois de juillet ibra islam nee na woor ko dana far bàkkaari ñaari at ku liw rëy ngi ci tabaski door a ñëw nag borom xam dañuy wax ne eh, li tax ñu jàpp ne moo gën ci mu gën ci at mi li ci daje ci ay jaamu yàlla dajewul ci yenn bis muy tabaski muy aj màkk gi koor gi ci koor yu baax yi ci daje ak yow mu araf bi ci nekk te bu gën ci bis yëpp nga xam ne bu dikkee suñu borom day fay jam di puukariw di ci jaam yi nekk màkk di ko ajal di di ko jaamu kon mooy bis yi bëccëg yi gën ci at mi bu ko defee nag fukki fan yi tabaski fukki fukkeelu fan bu ma bis tabaski ak fukkeel ak benn ak fukkeel ak ñaar ñetti fan yooyu mooy ñetti fan yi tabaski yoo xam ne yonent bi islaam nee na ay yaamu aklin wa shurbin ay bis yoo xam ne dañuy tere sax ku ko war tere ku ko war euh, tabaski nag sunna su dëgër la bokk na ci shaahira la min shaa'iril islaam yoo bëgg julli di fonk nga xam ne du jaadu ci am réew ñun ñëpp ñu lànk bañ ko def su su dëgër soo xam ne deret ji ngay tuur ngir yàlla li ci nekk ci aw yu kenn xamul moom sunu borom sunnaal ko ci képp ku ko man képp ku ko man eh, di as gor di ab jullit donte gone nga waamee alal sunna la say kilifa tabaskil la ndax jaamu yàlla goo xam ne yiw wi eh, ñëpp lañ ko bëgg def ku ko man nag li ci boroom xam-xam mooy man-man bi mooy alal di nga koy jënde bu mu doon loo xam ne loo mënta ñàkk la ci biir at mi waaye daal nit ki bu réglé dépense ci atam li muy lekk li muy naan li muy sol bu dee koy fay ndox ak courant nangam yooyu yëpp bu desee lu matum tabaski tabaski sunna la ci yow xawul toll muy sunna su am solo soo xam ne eh, dundal ko baax na lool ndax saa bu nit ki rendee ngir yàlla lépp lu ci laa rekk aw yiw waaye ñu bàyyi xel na jaamu yàlla la boo xam ne nit ki bu koy def na xam ne xar moom xas rendi ak jaamu yàlla la luñ luñ cee luñ jaay sañ nga caa lekk sañ nga caa maye sañ nga cee saraxe sañ nga denc waaye nag doo ci jaay dara dee su jaay der bi dee su dee su jaay yàpp wi doo ci fay sax ab feeskat bu la feesal nga fay ko ci yàpp wi da koy fay leneen kay su dee faqiir nag mën nga koo sarax wala muy mbokk nga may ko ngir loolu waaye bu ko bu ko bu ko fayee eh, li li muy def bëgg it nit ki di rendil boppam ab gàttam yonent yàlla Muhammad alayhi salaam moo ko daan rendi boppam ci loxo mu tedd ba soo ko mënut ki nga koy rendiloo na doon ku la diineem doy nit ko am diine waaye soo amee ngànt ci rendi bu ko rendiloo nit ko amul diine koo xam ne diine woy dafa woyof ndax jaamu yàlla la boo koy def defal ko sa bopp maa nga defaloo ko koo xam ne sa xel dal la ci moom loolu la yonent islam santaane eh, bis bu njëkk bi moo gën soo ko mënut mooy mooy mooy kon dibeer ji ko ko mënut altine ba jant bi so boo ko mënut talaata bu jant bi soo bu jant bi xasee soo ku ko mënut wàcc boo ko mënee ginnaaw bi wàcc na la ndax ñetti fan yooyu la ñetti fan yooyu la guddi it kenn du ko rendi ba tëgg la ñuy rendi bu dee njëkk bi yoor yoor bu ilimaan jullee ba rendi ba bis yi des nag bu fay raxasee jot wala yor yoor sax moo jig nag ba raxasee jot ko rendi baax na euh, yàpp wi nit ki mën naa tabaski jënd am xar moom ak ñim jaboote ci këram lu ñu bari bari bu fekkee ne ak njabootam lañ mu leen di dundal bu leen yéene waalee tabaskiwaat ci leen nit ki nag moo war a tabaskil boppam ak i doomam ak i way juróom yu ñàkk bu amee soxna soxnaam na tabaskil ko waru ko waaye su ko yéene waale cim xaram wàcc ko loolu lu ma taxam la jaamu yàlla na nga xam ne ñu ko mën lañ ko teg soxna si bu amee alal sunna la ni mu nekk sunna ci borom këram waaye nag bu ko borom këram yéene waale cim tabaskeem ndax ci watul bokk tabaski wàcc na waaye nag dee su ci yéene wala jàmbur boo xam ne nii buf ko ci sa njaboot walla dëkkut a yow wala dundaloo ko loolu ku ko bëgg a def mën ngaa ren jël am xar def ko ngir yow ak sa njaboot jël meneen xar koo ci bëgg a yéene man bu la neex yéene ko ci yonent yàlla Muhammad alayhi salaam bi muy tabaski am na moo xam ne ren di am xaram daal ne xar mii mu xam ngir Muhammad la ak waa këram ren men xar nag ne mii moom ñi am yéene tabaski te mënuñ ko ci xeetu yonent yàlla Muhammad yëpp loolu ba tey kilifa yi dañ koy def moo tax dinaa dalal xel mbokki julli bari nga xam ne amuñuy xar seen xar lal xam ne am nañ yoolu xar am nañ yoolu tabaski ndax nit ñu baax ñi dañ leen di yéene waale ba ji am dañ am ci te liñ ci soxla dëgg-dëgg tuyaaba ji tax nag ni ci nit ñi sonne yi daf ko daf ko jamono jamono ji nga xam ne mooy doon jàmbatul nit ñi agut foofu nag ko jàppale ni jàppe aj màkk ku ajiwut màkk da ko mënut bu asaka jotee ku génnewut asaka warul la ndax amoo ko tabaski ku ko amul noonu mel du aada ñu doonee aada nag mu indi jafe-jafe yi te it lor ji ci nekk mooy lépp lu yàlla moom boo ko defee ngir aada danga ñàkk sa alal te doo ci am doo ci jëriñ waaye lu ma ta moytu la sëñ Abdoulaye julli ñi xam loolu xam ne ak jaamu yàlla ku ko mën daal bëgg nañ nga def ko ci anam gi ñu wax su ko defee lépp nekk aw yiw bu yow nga xamee da lay jëriñ jëriñ sa njaboot xar mi ñu war a war a rey ci tabaski nu mu war a mel waaw xar mi ñuy rey moom xar mi ñuy rende ci tabaski na am at parce que dañuy wax ne daaw yow mu arafa xar mu ko juddu woon bu renee mën na tabaski ah. nga xam ne benn bis dong bu ko tegalee mën na tabaski bu dee bëy nag na mat at tegal weer gën jaa néew yooyu yooyu mooy mooy yi nga santaane ah. te mucc nag ci ayib yi nga xam ne day tax du doy ah. bokk na ci bu mu doon mu feebar ba nga xam ne ku seen xam ne daa feebar bu mu doon muy soox bu mu doon manqué ab cër cër bi ñuy wax nag bay jën bokku ci béjjén moom bi ñuy bañ mooy mu béjjén yi foq damm te góom ba des fa te wéeragul uh-huh. moom matul tabaski waaye su wéeree ba nga xam ne góom nekkatu fa mën na tabaski uh-huh. xar mu ñu tàpp mën na tabaski kon bu ñuy wax manqué cër yooyu taxut ñuy wax moom waaye bu bu bu genn ba daggee lu mat sulus boobaa matul tabaski ndax lu lu mat la war a doon ndax yàlla lañ koy jox uh-huh. kon wari su ko jox lu manqué wàllu sikk bu dee moo xam ne dafa dafa dafa dafa dafa dafa dafa dafa dafa wéradi bu amatul dara ci garis ku ko seen xam ne daa wopp boobu mënut a tabaski uh-huh. loolu la bu ci muccee say bilaat kon dañ ci dégg ne eh, jëfewut uh-huh. xar mu mat rek mën naa tabaski mën naa naa doon jigéen jigéen su rendee dina dagan waaw ci lislaam jigéen mën naa rendi ni góor mën na rendee dañoo bëgg kuy tabaski ku ne nga sa bopp uh-huh. day jigéen itam moom xaram su ko mënee ren na ko defal su ko mënu mu door a wuutal koo xam ne wóolu na ko ci diineem nag sa su ñu bëri dañuy jàpp jigéen bu rendee ah, rendi moom lañ ci sant na doon ab jullit mbaa mu doon ahlu kitaab uh-huh. tey it sart rendi mooy nañ na dagg li war a dagg ci uh-huh. anam gi ñu ko war a dagg ndax uh-huh. lañ ci sart jullit man na bu def bu dee bu ràññale sax bu mu doon nag ko xamewut kon gu ndaw gu xamewut bu rendee medd la ku tàggoog sakoom ba xamatul fu ne medd la ak yéefar boo xam ne gëmul yàlla bu ko jenn diine bu rendee medd la anam gi ñu santaanee nañ ko rendee ci kanam lañ koy rendee dagg xolxoom bi ak ñaari siri yi ko séq bu ko jaaree ci ginnaaw bu noppee medd la xëy na loolu moo ci mat a bàyyi xel waaye kuñ ci jàngal anam gi ñu war a rendee muy góor gi mu jigéen bi bu rendee bu baax waaye nag ku ci nekk na xam ne moom nit ki rendi am xaram mooy sunna su ci amee ngànt nag door ko def loo keneen ndax yëre yi ñuy sol ci di julli ji dañ cee sart mu bees mu doon yére yu bees waaw julli tabaski moom mhm. dañoo bëgg jullit bi bis bi bisu ayit la dañoo bëgg julli bi di ko feete kon sol ci yére yu bees moo gën sol ci lu beesut donte lu bees lu ñuul la moo gën lu weex lu beesut mooy safaanub ajjuma ajju moom sol ci weex moo gën lu mën a doon donte am bu mu màggat te weex moo gën bu mu weexut te doon mu yees waaye bu dee it nag mu mu yees la ñu soxla ñen ñoo war a julli ci ci ci ci ñi nga xam ne ajjuma farata la ci ñoom sunna la ci ñoom ñu julli ci kon mooy mag mu dëkk ci dëkk bi nga xam ne du musaafir doon as gor nekk mu kàllaf ñooñu na la ci ñoom ñu julli su ko defee koo xam ne julli ji raw na la it sopp nañ nga julli ko sa kër waaye nag da ngay beru julli kon lu ñu wax rek ne julli nañ ba noppi moom jeex na suñ jullee ba noppi te nga am ngànt wala nga dem fekk ñu julli bëgg nañ nga julli sa julli bopp waaw jigéen ñi sax dañ leen di digal ñu dem ci jullikaay nu soxna su ma sa wax ne buñ ma saan am ngànt ba duñ mën a julli sax dañuy wax ñu leen teew fekk ñaan gi hmm. dañoo bëgg ñu génn mbooloo yi génn dajaloo ci ëtt bu yaatu ñëpp teew fa ñu julli xutba door te saaro hmm. kenn koy dal bu yoon bi nga jaar sax dañu bëgg booy dëpp nga jaar beneen yoon hmm. euh, loolu moom ci ci ci sunnay bis bi la bokk di mbégte mu rëy nga xam ne bis bi dañoo bëgg bis bu dikkee ñëpp sangu moom it wuti na ko ajjuma ajjuma ab kii julli ji lañ bëgg mu sangu mhm. bisu it nag julli ji lañ bëgg mu sangu sangu janaba wala sangu sangu ba set sangu yaram rek sangu saabu mhm. ngir taaru ci bis bi rek mhm. waaw nga xam ne di xet den nag sa morom jullit eh, yore xet gu naqar lañ ci bañ ñu bëgg bis boobu daal ñu sangu mag ñi sangu gane yi ñëpp ñu sang bañ set bu leen mënee solal yére yu yees ñu solal leen ko bu ko defee muy mbégte tuur deret ji jaamoo ko yàlla njaboot gi lekk ci bëkki ñu saraxe ci maye ji buñ bëggee denc denc waxtu wi nga xam ne ci lañ war a julli euh, ci ci ci bisu tabaski maanaam fu mu tàmbalee ak fu mu yem ba xam nga tabaski julli gi naafile la. Hmm. naafile moom saabu waxtu naafile daga ne mooy bu jant bi fenkee ba dox lu mat genn wàllu lu mat ñetti mètre wala ñaari mètre ci gisu bët. Hmm. maanaam daal su jant fenkee trent minutes ginnaaw bu jant fenkee la fa tàmbalee ba tisbaar tisbaar la moom. Hmm. bu tisbaar xasee jot faat na bu jullee jëratu ngay julli kon sunna si foofu lay am euh, kon manis na koo julli su jant fenkee léegi nag korite ak naafile ak ak ak tabaski li ñu wute mooy dañuy bëgg bu tabaskee ñu hmm. yeex a julli hmm. ndax may di ñu génne muuri koor yi door julli bu dee kor yi bu dee kor hmm. bu dee tabaski nag dañuy bëgg ñu teel a julli ndax rend beeg ya ci ajo ñu man koo teel def waaw ndax am na mbokk yoo xam ne dañuy yàkkamtee rend ci lool te ah. xamuñ ne njëkk rend imaam tamit loolu ah, waaw maanaam ci masa bi ñu nekk mhm. ku njëkk rend sa ilimaan yàpp tabaski yàpp aw yàpp nga am mhm. waaye yoolu tabaski amutoo ko mhm. ngir mu nekk tabaski bis bu njëkk bi da ngay ba sa imaam rendi nga doon rendi loolu moo tax ñu bëgg imaam yóbbu am xaram ca jullikaay ba su jullee xutba rendi ku dellu sa kër xam ne sa waxtu rendi jot ñu amul ilimaan sax dañ leen di sant ñu nattale bu ñëwoon dëkk sàngam kat li ma am dëkk bu nekk seen diggante nangam. Mhm. ñu ñoom kat di 9 h la ñuy julli daanañ toog 10h moins quart la imam di rend dañ nattale. Mhm. bu 10h moins xam ne ba xam ne imam bi war naa sëlmal jàpp imam war naa sëlmal ba rend ñu door rend. Mhm. bàyyi xel loolu baax baax ne. yàkkamti jóge ci jullikaay bi am na ñoo xam ne duñ nekk sax xuddu bi imam day sëlmal rek ñu daal di wut seen waaw bu ñu àggee daal di defar. <laughs> te bu fekkee xutba ba xaw naa diire ba ilimaan nga njëkk a rend sa ilimaan am nga yàpp de waaye amoo yoolu tabaski loolu du mat a bàyyi xel jaamu yàlla ba noppi sa alal dem te jëriñoo ko it nag loolu it solo jar hmm. na moytu baax ndax day farata wala day force ci nit ki mu xottil lu bees ay njabootam ma maanaam jënd xar mi ak xottil soxna yi ak doom yi lu ci gën a farata waaw xam nga benn du ci farata hmm. benn ci fa hmm. ab boo xam ne day saan daa wax ne sunna la ci ku ko man ku ko man su bis bi dikkee na nga wut am xar rendi ko uh-huh. jaamoo ko yàlla uh-huh. sant ko yàlla bég ci jariñoo ko jariñe ci bisu mbégte nag day ànd ak yooyu ko am loo sol yu bees sol ko bu amut lu bees fóot la nga amoon mu set nga sol ko uh-huh. maa daal bul génn ci nit ñi daal ñu naan ay ca ay gore ku ci xottilu la sa soxla daal moom lislaam gàllu la ci dara ndax waru soxna moom ci lislaam ñaari yoon lañ san nga xotli ko mu hmm. tàngoor ak mu sedd bu xëfee xarut santatul la nga xottilaat ko hmm. li ci des suñuy aada la xew bu jot nga xottil ko moom ku ko man it nag lu baax la ah, loolu gars yi ci ciy daj de nag lislaam santu ko kenn waaw ah. lislaam santu kenn sa bu taw si di kenn nga xotti njaboot hmm. waaw mu sedd moom ak la hmm. joo ko amee wodd ji wodd bi nga ko war a wodd mu am na mu muy sol bu tàngoor bi dikkee na am mu muy sol bu sedd bi dikkee saa su loolu soo ko xasee def ci sariya wàccoo nga moom léegi nag yaatal nag kooku man wàññiwul dara waaye na fekk man ko moo yu baax yëpp ñoo yem bi ci des fukki fan yi bokk na ci li mat a fàttali seen blaat yëpp islaam nee na bu weeru tabaski teroo mhm. ku nam ma tabaski ci yéen mhm. bu mu laala ci kawaram bu mu laal ay wayam lu am solo booba muy julli ba noppi mhm. nam ma tabaski yi nag ëmbaale na njaboot gi bëgg a yéene du borom kër gi waaye njaboot gi nga xam ne borom kër bi fas na leen a yéene waale ci tabaski ci loolu lañ jug ñu a leewi ko bañ a watu buñ leen buñ leen wat bu noppi weeru xasitaru buñ leen leewi bu kenn wat genn kawar waaw loolu de moom moom sëñ bi mat naa hésité ndax dangay ngay gis ne nit ñi moom buñ dee waaj a julli salon coiffeur yi ñi watoo day xat fees dell loolu sunna si yonent ay salaam mooy da ngay julli ba ñëw rendi sam xar looy def nga dal ko ah. def wax ne na képp koo xam ne tabaski teroon nga ne moo julli bu laal kawar bu laal way ah. loolu mooy sunna ah. kon sëñ bi dafa mel ne eh, ñu fàttali bokk yi nga xam ne ñu ngi ñuy topp seen émission gàgganteku ñu ngi fii ci daaru salaam ndaam ci kër Serigne Mbacke Abdourahmane euh, dafa mel ne xam naa ne li aju woon ci tabaski gi liñ bëggoon ñu leeral ñu ko wala ñu gàggante ko ci leer bu fekkee am na loo ci loo ciy mottali rek. waaw ah, li ma ci bëgg a mottali de mooy li ma waxoon léegi di ko fàttaliwaat ñu xam ne bis boobu bisu jokk diggante jàmbeeg boroom la. Mhm. mooy julli yi bàkk yàlla yi kañ gi. Mhm. di ko kañ. bari lu ñëw allahu akbar lool ñetti fan yëpp. waaye bis la yu ñu rafetal diggante sa morom jaam kon ndawal gi ngay defar lekk ci saraxe bu njëkk sax dañ doon tere denc yàpp tabaski lu ëpp ñetti fan gënam am salaam moo dagan la ginnaaw bi loolu dañ ci dégg rek ne dimbale ko nit ñi nga xam ne tey ñii tabaski buñ doon bàyyi xel ñi amut ñëpp danañ lekk ba suur mel ni bis bi loolu lañ jublu dëgg dëgg lool la nga xam ne kon boo reyam xar wala nga rey ñaari xar mel na mën nga saraxe ko te ko moytu nag jox ci koo xam ne du jullit ak jaamu yàlla loo xaritoo xaritoog nit ki bu fekkee ñëwul ba si biir kër añ jot mu fekk la ci kër gi moom boobu doo ko ne bu lekk waaye di tibb di leen dañuy wax ne jaamu yàlla la koom koy jox na doon koo xam ne yayoo na ab jullit na yow moom lañ ciy sarax moom lañ ci may waaye nag ku bokk ci leneen te bokk seen njaboot walla ñëw seet si la bis bi bu ci lekkee yi doo ñëw dara uh-huh. waaye loolu ñu bàyyi xel ndax ñu léeg-léeg xaritoog dëkk bara bi day jur uh-huh. waaye ñu xam ne jaamu yàlla du leneen waaye nag yooyu yëpp nag jarul di ko wane woo ko uh-huh. jàppal ne yaa ngi koy def ni jaamu yàlla bu amoon sama yàpp sax may leen ca xëy na seq ngeen ko dara nekku ci waaye bu mu doon yàpp wi nga xam ne dañuy tere ko jaay dañuy tere ko ci jaay dara yàpp xanaa leen ki nga ko sarax moom moom yàpp maanaam yow mi rendi xar mi la ñu wax ne la bu ko jaay. feeskat bi soñ te jël baat baat bi moom. ndax bu fekkee da nga koo fayee dëgg te fii moom dañ koy fay. dañ ko dañ koy gis ñu koy def. loolu mooy jaay la mooy waa ji da laa nga fay ko baat bi dañoo bëgg nga fay ko xaalis wala nga fay ko leneen. Mhm. boo noppee nag bu dee faqiir wala muy mbokk sañ ko ko may waaye boobaa nag la gën sax nag bu ko may baat. Mhm. ndax baat day nuróo àqam yu mu jël. dëgg la ñoo day jàpp ne ñoo ñoo ko moom. Mhm. loolu jàpp naa ne. sëñ la jar na bàyyi xel baax a baax. ci ci ci bu ñuy bu ñuy bu ñuy tabaski waaw. jërëjëf Serigne Mbacke Abdourahmane jërëjëf mbokk yi nga xam ne ñoo ñu doon topp ci MKTV euh, ci seen émission gàggantiku euh, bind bi lu ñu doon gàggantikoo tey muy lu aju ci wàllu tabaski yaakaar naa tontu yi nga xam ne sëriñ bi indi na ko ci leer na bëri na yu ci lëntoon bëri na it coono yu ci nit ñi di tàggoo yoo xam ne yi ci bëri lislaam tegu leen ko kon ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm di yamale jataay bi fii. di sant mbokk yi nga xam ne ñoo lañ àndaloon di sëriñ Abdou Khadir ak sëriñ Cheikh Diop di leen dig daje ci beneen émission incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh waj'alhu maskana xurujin min dulam linnuri wakfi anhu kulla man dalam